coow bi lu ci nekk mooy dafa simple you noo because I don't know dëkk lii centre bi nga gis nii man su ma gannaaw lañ ko samp fii ñu ma dem Europe fekk ñu ngi ko baag fii suñu councilor bi those days sorry suñu MP bi those days c'est Omar c'est Omar Ndiaye c'est Omar waaw c'est Omar Bamba waaw Bamba Autoworks Omar Ndiaye ok so anyway moo fi doon baag fii man by the time bu ma gën a dëkk bi di tukki you know so bi ma ñëwee fekk centre bi pare nañu ne dañ ko jox ñaari ñaari ñaari ñaari groupe lañ ko jox baax yaay ak jikko ñun ma ok baax yaay you know mooy suma yow man suma yaay si boppam si groupe boobu la bokk baax yaay mooy suñu maire yi suñu maire yi sosé because in fact sa lii gars dañ ko ici dañ ko ségrégé xam def ko maire soose yi ak olof yi suma understanding I'm very sorry about that you know which is very wrong sa in you know waaye tamit noonu la ko gisee man su ma fokk fokk waaye ay may bi wrong because baax yaay ak jikko ñi ma baax yaay mooy suñu yaay you know suñu mère yi ñun you know including my myself you know I mean sorry jikko ñi ma you know mooy suñu mère yi you know <laughs> sorry jikko ñi ma mooy suñu mère yi suma yaay itself baax yaay mooy ñoom beneen groupe bi ñoom guy suma sista guy you know guy Njaay you know ak suma sista um, mag yi kii nii naka la si ajaratu ndey euh, magi badu you know magi badu Ndiaye ndey Kumba you know ndey Kumba kii ak nguy ñoom ñooy baax yaay ñoom ñooy beneen groupe bi you know ñoom dañ am seen société so ñaari société lañ ko joxe basically you know baax yaay ak jikko ñi ma ok ñoom moom fii nii dañ ko divide into two soo ko bàyyi xel sax anyway noonu la mel dañ ko divide into two two apartment so ñii moom benn bi ñii moom benn bi so moom moo ñëwee batik la fi gaa doon def dañu daan cuub cuub la fi gaa daan def di am xaalis you know so waaye tamit dafa duñ ko dee use bu baax you know it's useless you know mun nga ko mën a waxee because man since moo ñëwee benn tey lii mu ngi fii cuub la fa gaa daan def te cuub bi sax occasional la ko gaa di def occasional yi soo bariwul bu baax xam nga anyway noonu la fa nekkee because of God you couldn't use booba so it's not it it, was, it wasn't useful in the society anyway because ñu ko daan cuub sa waa ji sa Modou Moussa moo fi daan cuub Modou <laughs> daan cuub fii moom laa fi daan fekk muy cuub waaye after for sometimes guys stop nekk na fi ages gars yi cuubatuñ defatuñ fi benn activities you know man suma bopp sa Ablaye solo naa fii nii maman imam you know maman suñ imam bi tubaab kuréel fii solo naa fii nii pour def ay poltrie ko am suñ loxo mairie so tey nañ ba soona ñu ko doon luwee bëggoon nañ koo luwee def fa poultry you know nga xam ne dañoo jaay gannaaw jaay ko société bi fii suñ Tubaakuloor bi fii because you know pour Tubaa not only Tubaakuloor waa town sax suñu yee jënda because dafa rëy dañ koo yaatal waaye dafa cib tamit pour uh, you bi dañ ko doon def very cheap definitely so te dañ ko doon luwee di di di fay gaay loolu lañ bëggoon waaye nanguñ ñu koo jox you know tey nañ lu nekk nanguñ ñu koo jox you so after mu ngi mu ngi nekk fii empty building amu fi benn njëriñ ñun fi leen jee toog 24/7 you know so fi leen jee fi leen suñu bu bëggoon fee def lu am fayda activité ci waaye benn activité mënu fee def ñu so doo ñoo ñëw ko moom you know so soo ko buggee si ñooñu ngaa dem pour ñu jox la ko to be honest waaye you know basically nangu wuñ pour jox ñu ko so lii mu ngi tëju noonu amu benn amu benn use so ñu dem ba nga xam ne léegi Samba Fall Samba Fall ex mayor bi woon moo am ay ay tubaab you know yu jógee Germany you know mu am contact ak ñoom bëggoon bëggoon a convert fii def ko def ko dental clinic so which was very very good you know for the society daf doon baax pour Tubaakuloon accès ay sori to you know Banjul accès wul Tubaakuloon in fii la nekk you know so ñoo ko doon gën a bénéfice suñ suñu neighborhood la waaw it's not it's not ours it's not going to be ours though waaye tamit lu nekk sa sa neighborhood kay moom yow la moo gën a bénéfice daan outside si so basically yow no sa bos la so bu mu ko doon bëgg a convert pour def ko loolu it was a very good idea ñëpp ñu support comme ici tubaab bi ñu dañ waaye mu convert fii soo xoolee fii lii moo ko fence Samba Fall fii open place la woon only building bi rek moo fi nekkoon it was open completely fence yi definitely moo ko fi def you know moo fence fii nii because of German uh, uh, so you know couples lañ I know them amoon nañ seen adresse sax seen adresse sax benn tey foo naa imaam mu seen ñoo interfere pour def méga ñoom yi any contact dañu joxoon sen contact ak yooyu noonu waaye xam nga sama Fall fek man dama daan am mon problème dama daan am mon issues fi ni issues yu bari suma way la you know li xam nga rek ci TV la neka, because TV do fa nekka di fen so it's a long story you know loolu tubaab kuréel yëpp xam nañ suma digante sama Fall ni demé so be ci election bi ni passé ni sax apolo jay son nako you know so because tamit kuy njit ñi ñi ngaa you know so man loolu la believe man believe moo ne da nga nek njit fi ni pour mo dem di la gossip ou la def yene you know li ma believe mooy ne suñ su ma njiit dama laa respect ndax su dee ñoom ma him ko tey mal ko ataaya dem yóbbul ko ko you know le maximum respect su doon ma leen daan toog dama ko fa dama him ñu fekk ko ba fii jokk ko waaye tamit because of issues dañ fi jixoon fii nii ay guy si biir di ko wota gars yi ne man waruñ ma waruñoo use loolu mooy leen non ñu dañoo def lii fii pour docteur yuy ñëw élect ñu fekk fi ay guy dem cause tubaab bi dañ laa yëg so suñ ko wuté mu taw you know ñom ñoko enjoy waaye dafa baax ci environnement bi guuy dafa necessary ablay so wala tuba ko fi ni guuy yeb ñoko fi def macha allah gannaaw yalla guuy yi nga gis ni so paré nga xol ko bu baax yeb dañ ko doon def experiment pour ko yeb ñu def ko green lool yeb bokkoon na suñu lifin suñ agenda yi ñu ngi amé suñ own NGO you know ñun déggoo football club suñ elders yaa ngi ñu ko register efutek ñu amé suñ suñu budget dañ dé dimbalé ñu ci biir weeru koor bi génne nañ suñ xaalis jënd ay dugli na sukur joxe ko am nga comme fii dafa complexe because comme ni ma laa woon nii ñaari ñaari groupe yi ñoo moomoon fii ñoo ko moom moom la ko ñoom la ko monsieur euh, Omar Faye liggéeyal joxaan over leen ko gaa ngi amee seen documentation ak everything man sax musuma ànd ak ñoom am naa ñoom problème folaat ak ñoom ñoom besoona because comme li ma la wax dama su ko soloon ñu bañ suma un yaay ñoom moom fii nii ñoom euh, Adjama Bali Adjama Bali mooy woon suma xeedi ñoom yaay moom yaay compagnie APRC la woon because li APRC la APRC groupe la woon understand nga li ma laa ñoo ko initié so seen lifin bi MP bi oda APRC la mooy Bamba oto Works so mu bila ko gaay gaay fam seen du mu jox leen ko so bu ko Samba Fall nangoo seen loxo liggéeyaat ko nii bu ko def clinique um, dental clinique mu tombee time moom a ngay jeex Samba moo liggéey fii fekk time moom jeex na léegi ñu jël you ñu ngi war a dem élection ñu jël kii ni naka laati koto boobu noonu something thiaw you know pour mu ak tangum you know il faut ñu dem élection euh, oncle xaw ma naka caw thiaw something bay thiaw oncle mbay caw moo nekkoon interim bi those days you know so di oversee moo moo nekkoon acting mayor ba il faut ñu dem élection because obiles dee demee sa temps bi su jeexee da ngaa ñu fom beneen ñu issi beneen interim ñooñu diriwul ba balaa ñoo dem élection ku ñu hand over la nga gifi nga continuer so si loolu lañ nekkoon so layba layba took up took over layba took over Samba Fall dem layba ñëw layba ñëwa Yaya Jammeh Yaya Jammeh doon dem round Banjul ñëw fii you know duga fii nii mu ne ko fii lan la mu ne ko sentala pour lan mu explainal ko mu ne ko jigéen yi lañ ko joxoon waaye Samba Fall daf ko nangu woon bugga koo def clinique mu ne ko na ko delloowaat jigéen yi moom Yaya Jammeh suñ kanam fii mu ne na ko delloowaat jigéen yi lu ma witness la laa waxal nii de ok dalawaat ko euh, bi bi bi bi si si ñoo jëloon ownership Yaya ko euh, euh, si loo maire yee ko moomoon ak mooy mu ne groupe yooyu ko moomoon ñu nangu ko loxo because of BCC ñoo ko soxla pour public interest which is very true so léegi gars yi bëggoon def loolu fii mais bu fa nekkoon kooku dem na ñu meeyoo ñëw na amatul contact boobu noonu you know so mu ànd fee président président nañ ko delloowaat jigéen ñi ñu delloowaat ko jigéen ñi so buñ ko delloo jigéen ñi benn tey place bi comme li ma la wax ne mu ngi doomaan duñ so ku fi am activité bu nga fee def anything comme li ma laa wax nii you know amin bàyyi ko muy yaaxu fii nii tamit amul benn njëriñ mu nekk coow you know ko dee nangoo jox soo ñoo dañ fi bëgg a def things te defuñ fi noteen so ñoom ñoom moom seen aleel ñun moomuñ you know waaye tamit dama believe na ñun ñëpp a ñëpp a si am because aleel yi society la dëgg la ñoom suñ sisters lañ ñii suñ yaay lañ they are part of us we are part of them so lu moom ñoo ko moom soo ñoom suñ ko mënta use ñu war nañ ko mun a use ñëpp benn ñëpp bénéfice si waaye tamit pare ñu koo jëpp ñu ñëpp bénéfice si so ñu bàyyi leen ko gars yi téye seen alal ok léegi fu mu nekk nii amaat nañ beneen ceñof ceñof council you know beneen meeyoo ñëwaat na you know mooy suma sista ñëw na moom tamit bugga naa liggéey fii ni gaa yi anyway astafurlah so loolu moo aw ma si knowledge sa tout much because here see la suñ council bi moo ñëw fii li moo wax loolu Bintu Kabaya ñëw fii one time di ma wax ne wel dafa am plan bu ko def fi day ñëw di meesoo di dem a ñëw mais one time musuma woon notin mais woon dee la jékkee-jékki rek fekk ñëpp a ngi toog fii mu ñëw ne ma wel plan bi laa am pour fii moom fi bëgg a def maquette you know ay stores boutique you know nekk si digga bi you know ma ne koy c'est good idea waaye tamit mu ngi am push and pull ak baax yaay ji ñi ma suñ maire ñu ma moon fii bi ko ñooy dañ believe ne ñoo moom fii so council bi suñ fi bëggee def anything dañ need pour wax a ba ñëw tu ak remain gars yi mun fee def anything so ñoom loolu lañ believe gis nga pour fii problème boobu fi nekk right now ñi ñoo am ay machine sax gis groupe ma la wan ni baax yaay bii nii nga gis nii ñoom guy ak ñoom euh, Ndey Kumba am nañ machine machine yaa ngi fa machine yaa ngi fi about three four years ago non sorry six years ago you know ñii dañ believe na ñoo moom fii you know bi tamit dañ am fonda ñoom ñoom moom fii lii conflict of interest la council bi ne ñoo moom groupe bale ñu ne ñoo moom so lii moo si nekk dañoo xëccoo amul ne li fi nde xëccoo yaa fa nekk ñi council bi ne moo moom groupe bi ne moo moom so I don't know which is which because tamit ay you know lii ale ñëpp la so council bi am na fi right mun na fee def anything man suma belief laa wax nii pour interest of everybody so belief naa loolu waaye tamit I'm not working in the council so I cannot say so believe naa ne ñu ne am nañ fi right am nañ fi right you know waaye tamit ñu ne ñële lañ ko jox ñële tamit ñu ngi wane ne ñoom ñële lañ ko jox so man dama believe ne council bi dañ war a waxtaana groupe googu noonu gars yi ñëw tu conclusion ku si nekk daaxee si sa interest pour interest si ñëpp tamit because council bi ñëpp la fi nekkal so obviously groupe bi seen groupe la ñoo moom seen alal waaye tamit council bi ñëpp lañ fi nekkal so ñoom suñu waxtaanee groupe bi ba gars yi ñëw tu agreement so addis dafa dafa dafa dafa you know gars yi mun a understandante because mu ngi nii kii mu ngi doon bil fii nii Ibu Seka moo fi si waat beneen machine waaye tamit fii because of support maa ngi support Barrow nii movement bi rek nii you know so jàppee nañ ma ennemi te man du ma seen ennemi du ma ennemi no body you know so Barrow ñëpp ko vote in you know ak coalition xam nga li ma la waxal nii so am naa right pour support ko benn tey because maa ko vote in you know because single party la woon coalition party la we so su ko groupe bi abandonné doesn't mean ne ma dama ko war a abandonné that doesn't make sense so di support Barrow dem nekk si youth movement bi loolu warloo ma see mere you know so dafa tasa suñ council bi suy ñëw fii sax du dee pare pour sax explain ma sax what is what first time daf ma daan diñ du nekk you know I mean it's a long story well man understand na uh, understand na ne council bi understand na ne council bi you know kilifin naka laati suñ council bi parewut pour you know mu ngi gaay raw bi dafa dafa ne dafa war a sampa store you know pour benefit everybody man loolu comme li ma la wax ne maa la council bi ñëpp la fi nekkal loolu su ko defee ñëpp la moo eh, benefit which is true very true loolu moom man wédewuma loolu ok waaye dafa di pet mu toog mu waxtaan ak ñi tamit man loolu laa si mën a wax loolu tamit la li fi sent wax loolu tamit satal la ne Cheikh Omar moo baak fil fii bil ko jox ko ñaari groupe so ñoom a ñoo jël seen alal da nga am pour loolu lañ believe man loolu laa fi dee dégg so man mënu refali loolu so dama la bëgg a woon picc bi nu mu fa nekk waaye ay kanu refali daal so xam nga moom waaw because nu mu fa taajoo nu mu fa taajoo mooy li ma la wax kii moo ko baak fiil sa kii naka laati <laughs> se Omar Faye se Omar Ndiaye moo ko baag fiil sampa ko loolu suma ganaaw la bu mu ko baag fiil ma dem Europe ñu ne ma sampane ma gis ne sampane fi ne kuñ ko sampal baax yaay jikko ñimma ñoo ko moom now you tell me for your own judgment man du ma loolu mënu ma koo jooj ak sa matter of fact definitely ah, MP bu ko bil member of parliament bu ko bil dafa jógee si ay parti he belongs to bu mu bilee fii mu jël loolu ko si parti parti Pati militant ami nelen ne len jël len yena mom moom ngeen def ci anything lu len ne ah come on yo legui fu nek ni su kansuloo su kansul bi ñewé step in ñun tam dañ soxla fi fo na kansul bi mo ëpp doole. ñu bëggé wonté diga kansul bi mo ëpp doole mo op individual group doole ak seen mataro fak ok su kansul bi ne fo bëgga ñi ne dañ bëgga ah man lolu mënuma ko mënuma ko mënuma ko so pour ñu wante dëgg so loolu yëfi fii dafa complexe waaw so therefore du ma si mun a wax man dama bëgg a put into the pour wan la fii naka lañ ko créer so léegi des na si nit ñi ñu gis ko seet kana moom fii ak what is the problème war la ne ñii yàgg nañu am seen machine ay tri machine waaye because of lu ma naari si ñii duñ ko daan use they have it I don't know what is am na blame to their group or something I don't ngi am machine ay machine five six years ago laa la waxal nii Ablaye is moo leen ko jox ma la Samba Fall génn na Belaye ba ñëw Belaye ba def five full time am bëggee na you know ñëw ah come on loolu ñaata years am machine yooyu noonu nga foog at least door na six years because kii door na five years so suy benn woon years si time yi time yi sax masin yi ñëw nañ fii te loolu Samba Fall moo ko moo ko producer loon gars yi si di seen parti APRC bi la bul fàtte waaye tamit ñoom ñoo si putut ñoo ko putut into into good use foo everybody ñu ngi ko foofu paak rek mu tegu fa soo nga mën loolu nag dëgg-dëgg wax dëgg neex yàlla nag loolu mun ma see wax notin la si mun a wax rek mooy mooy li ma gis li ma xam li understand fi mu ngi fii na ñu ne Baro Youth Movement waaw benn tey groupe googu noonu bul fàtte ne ñu ngi woon APRC di seen groupe ñëwaat nañ di support Baro yaa understand li ma ne bokk si Baro Youth Movement bi benn ñu ngi jàpp xam nga it's not political doo ñuy political movement moo leen ko jox waaye man you know mbiri fii daal I don't know so it's kind of confusion plot you know xam nga dañ ko politicalize xam nga dañ ko politicalize so therefore believe naa ne bi ñoo ëpp doole waaye man nag du ma mun a wax si on behalf of nobody dégg rek laay wax mooy ne ñii lañ ko joxoon ak sa groupe you know council bi tamit ñëw na am na interest so loolu des na si diggante council bee ñoom ñu said dem government if government la you know da nga am local government am central government na gaay dem central government ñu sot ko out ñu go up to the ministry level <laughs> you know so ñom ñoo xam Why Ibu Seka mo fi ici machine bi di leen bëgg bilal fi kan sulo bi ne li waruñ ko laal bi ko dafa bëgg bil so man lolu mënuma ko mënuma sé won notin mënuma jox ken dégga So therefore, no la fastane. ñom ñu ngi believe ne man I'm part of this project because ngi boro youth movement. Man project bi how much nothing. Comme ni mala wone li mum li ala li jigeni lañ ko jox. Ibu sa kam mo isili jigeni la ko han over. You know, dama bokka ñom ben movement bi rek ñama ngi boro youth movement ñu ngi fofu non rek ñom ñu bëgg ma associate ñom. Why I have nothing to do with them. Absolutely nothing. You know, group be ñu bolé. Boro movement be ñu bolé. Why su passé lool sen problème fi. Definitely I have no idea. that have nothing to do with me. Why not you must say,